asalaamaaleykum mbokk yi tey la gaawu ñaar fukki fan ci weeru kori ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci gàddaay yonente bi salallahu alayhi wa sallam dëppoo ñaar fukki fan ak benn ci weeru mee ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñaar fukki fan bokkul ci lim yu fàtt yi lim bu rafet la kon tey ci gaawu bi rafet na li ñu ci gën a taamu mooy ku ca watu gaaw bu nekk nag des cee tere tere watandiku ku ca sangu wala ku ca fóot ñaanuk bis bi yow sunu boroom yàlla na ñu defal tuyaaba àddina ak àllaaxira te nga musal nu ci mbugalum sawara rabbana atina fi dunya xasana wa fi laaxirati xasana wa qina adaaba annaar xadisu bis bi yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na dëgg ak dal la fen ak sikki sàkk la xadis bi at-tirmidi moo ko nettali qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam fa inna sidqa tumanina wa inna alkadiba riba rawahu tirmidi